jëf mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp ci site internet bi di 24 actu yi ñu ngi leen di bu baax di leen ziar fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, lépp rek euh, tey bu ngeen gisee suñu jotaay bi euh, nekk jotaay boo xamante ni lépp rek ngir waajalee ko màggal Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu dëdmal di màggal goo xamante ni mën nañ ne murid yëpp moom la ñuy waajal di màggal gi nga xamante ni mën nañ ne mooy tukki bi nga xamante ni moom la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tukki woon bu sori boobu du juróom-ñaari at at yu teg ay weer uh, ba tax tey mën nañ ni jullit yëpp wala murit yëpp rawatina taalibe yëpp bu lislaam ji amee jàmm tey ji wala lislaam taxawaat uh, mën nañ ne tukkeem bu sell boobu moo ko waral di bis bi mu doon waxee ne xaratu ma uh, ne macha allah moom la bis bi moom la ñëpp di waajal di màggal ko Touba ku ne gis na xam na ne nag suñu jotaay bi di jotaay boo xamante ni dañ koy waajalee màggal Touba waaye tamit ku wax màggal Touba mm, wax tamit weeru safar bi nga xam ne moom la doon mal ku ne xam na weeru safar bi ñu dënmal ñëpp dañ ciy waajal mbalem Touba mbale mi nag di bale dëkk yëpp rawatina Mbàkke ak Touba ak yeneen dëkk yu ko wër lépp rek ngir waajalee ko màggal gi waaye nag di setal bërëb yëpp daal te loolu lépp boo ko tuddee xel yi dinañ dem ci Baye Fall yi macha allah ndax dañuy gis liggéey bu am solo bi nga xamante ni dañ ko ciy amal bu ngeen gisee ki ñu feggal ci jotaay bi nag di Baye Ibra Dia waaye nag nekk ci waa Maam Cheikh noo ngi nuyu bokki jullit yi di nuyu bokki murit yi rawatina njabootu kër maam Cheikh Rahane Fall waaye dellu di santaat yàlla bu baax di sant Cheikh Modou Fall Fall suñu jàmbar ju baax ja eh, ndax lii lépp moom moom moo ko waral eh, barina lu mu wane ci yoon wi loo xam ne eh, taalibe yi ko jàpp seenu taalibe gën naa fees gën naa fee gën naa feeñ benn yoon loolu nag moo waral te ji soxna si ñëw fi ak rajo bi ànd ak waa délégation bi àndal di laaj ci waajtaayu mbale mi loolu nag waajtaay la boo ko ci def da ngay waaj kuy séentu ay gan fokk da nga koy waajal waajtaay woowu nag maam Cheikh Ibrahima Fall njëkk jëkk xam nga naka jëkk da ko daan def naka jëkk ndax Touba gi yaakaar naa bi mu jógee Darou Salaam dem Touba gor ko Cheikh Cheikh Mouhamadou Bamba bëgg faa sanc Cheikh Ibrahima Fall njëkkoon na faa dem bale dëkk ba ba mu set loolu kon ci waajtaay la waajtaay woowu ba léegi dem ci la nekk waajtaay nag soo gisee ku koy def day séentu gan gan nag sunu maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga nam ci daan doxee a jëkk ci eh, Cheikh Mouhamadou Bamba bi yàlla dugalee mu jóge ci géej gi ñibbi ci liggéey liggéey mu tedd boobu ba sama borom fayee ko ci li ko yow waaye dafa digaloon sunu maam Cheikh Rama Fall mu dem Thiès ba mu jógee Ndar kon cees la daal dem waaye bi mu nekkee Thiès itam xam nga ne Cheikh Amadou Bamba naka jëkk daf daan am ay gani naar ay gani sëriñ ay gani gan ñun fa gan fu ne gan da ko fay bàyyi ko waaye li muy nekk nekk nekk Thiès nag Cheikh Amadou Bamba nekk njëreem teewul dafa daan togg ay xeeti na yu bari yoo xam ne yi da ko daan teeroo gan ñi loo xam ne saa su ne da ko daan sëfee ah, Thiès di ko indiwaat njëreem loolu moo waraloon eh, mag ñi saxaar gu njëkk googu ñu daan wax naan régulier eh, soo déggee ñu naan régulier ñëwagul eh, añub Cheikh Rafal ñëwagul boobu lañ daan wax booba sunu maam Cheikh Rafal day togg foofa di ko yanu di ko indi njaareem bi nga xam ne gan ñi dem na ba gën a bari nag la ko Cheikh Ahmadou Bamba joxaat ndigal ne ko kon damaa bëggoon nga fekk ci ma njaareem benn yoon nu bokk dëkk ma ak yow waaye nag ci bokk dëkk gi nag Cheikh Ibrahima Fall war ma ji mu jeex Cheikh Amadou Bamba looloo tax bi mu ñëwee njaareem itam xam nga nekkut kër gu mag léegi dafa demaat léegi Madina Madina faal foofa la nekk nga xam ne moom fa la am këru boppam raay bi dox seen diggante nga xam ne lépp lu mu def ci xeeti benn da koy yanu indi ko kër Cheikh Amadou Bamba wàccaay woowu nag ci la nekk di ko wàccal ndax eh, benn param safar bii day soo gisee ñu jàpp ko rek moo di safar ci boppam sunu borom lim ci fay Cheikh Amadou Bamba daa waxoon ne sama cant lott naa ci damaa bëgg nañ ma ko santalee loolu nag Cheikh Saliou Mbacke ak Cheikh Abdou laat ak ñi fi jaaroon ñëpp kenn ku nag wax nga jaar jaar yi nga xam ne Xaadimal Moustapha jaaroon na ci ak bés bi itam liñ ko ci fayee ak cant gi mu ci bëgg a sant suñu borom nga xam ne loolu moom ci boppam moo ko defaloon boppam ci loxol boppam eh, ci xaalisu boppam la defoon cant googu def benn yooyu cant googu nag ci leen bëgg a jëm. macha allah Baye Ibra ci nuyoo bu am solo boobu macha allah mu nekk loo am am solo comme ni ñu ko waxee rek ci waajtaayu mbalem Touba mi ak naka la ko murid yi wala euh, waajalee ak taalibe yi rawatina moom mi nga xamante ni mi ngi bokk ci ëttub maam Cheikh euh, daan wax naan euh, ba hubbin aw hadiyatin wax naan nafsi wa diini suma wal walat maskani lakka wadiatun abad nekk loo xamante ni comme ni ñu ko waxee dëdmal weeru safar bi di waajtaay di waajal li nga xam ne mooy mbalem Touba mi rawatina ci safar bi nga xam ne ci lañ ko jàpp ah, Baye Ibrahima ndax mën nañoo xam naka ngeen di waajalee euh, set setal setal dëkk bu sell bi di tuuba ak Mbàkke ak mën nañ yeneen gox goxaat yi ko wër di xam naa waajtaay yi day moom wax dëgg yàlla euh, sëriñ bi moom buy santaane murid yëpp lay sant ndax yoon wi moom euh, su xaadim Moustapha def na ay na muridullahi kon murid yi rek la woo murid nag dafa am ab ràññeeku bu ci am boo xam ne mooy Baye Fall kon loolu daf mel ne saa su nekk kon soo gisee sunu maam Cheikh a fës ci Baye a fës ci murid yi gën cee nangu waaye Baye Fall moom murid la Baye Fall murid la di waaye xanaa daf cee a fës rek moo tax ñu naan kon léegi Baye Fall daa beddiku ci biir yoon wi naa am na yaakaar naa am na gendarmerie yaakaar naa am na police yaakaar naa am na quartier goo xam ne yaakaar naa bu soxla woon tey ji quartier ga a jógandoo kon loolu nag xam ne kon maam Cheikh ci diggante nekk tax na kon fukki kër yi maam Cheikh ma Fall yi ak benn kër yooyu la ñu woo ñoom ñëpp ñu àndandoo tàmbali mbale mi waaye dafa am jawriñ joo xam ne jii nag am mbàkke mbàkke la eh, nga xam ne moom saa su nekk eh, Cheikh Abdou Latif dafa taqoog sëñ Muntaqa xalifa général bi waaye saa su nekk mbale mi saa su nekk day ñëw toog àndante koog nun fu ñu war a jëm mu ne fii ngeen war a jëm nga xam ne kon jàmbaar ji nga xam yàlla da ko nekkan fi nag di sëñ Fall sëñ Cheikh Jëmb Fall daa jëw doomam di sëñ Fall Fall jëw sëñ Modou Minta def ko muy jawriñ ñi kër maam Cheikh Rafal gépp ndax li waral lool nag sëñ Fall lu wax dëgg yàlla bu dee seet kër maam Cheikh Rafal fukki kër yi daanaka kër goo ci dem gu nekk taaw ba fa nekk sëñ Fall loo ko mag te ñoom ñëpp ñoo bokk benn baay fukki kër fukki kër yi ak benn eh, kër gi kër rakkam la ci am mu kër maam Saliou Fall waaye suñu maam Cheikh Rafal moom fukki doom la am yun xam yoo xam ni xàmmee na leen ñun ñëpp Serigne Touba am na fukki doom yoo xam ne yun xam la yoo xam ne ñëpp a leen xam benn yoon juróomi doom yi ñoo nekk xalifa Cheikh Ibra am na fukki doom yoo xam ne yu ñu xam la juróomi doom yi nekk na xalifa juróomi doom yi nekkul xalifa teewut nag ñu am yeneen i doom yoo xam ne yeneen doom yoo xam ne kenn ku nekk jaboot la kenn ku nekk jaboot la waaye ñooñu lañ gën a xàmmi ci juróomi xalifa Cheikh Ibrahima Fall ak juróomi xalifa Cheikh Ahmadou Bamba naka jëkk loolu moo toppante loolu moo waral euh, saa su nekk ñu naan fukki kër ak benn ndax maam Saliou Fall ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk ñoo bokk lépp kon kon këram ak kër Cheikh Rafal genn kër gi rek la ñoom ñooyu nag waxtu woo xam ne ndigal agsi na ñoom ñëpp ñoo koy bokkandoo àndandoo nekk ci liggéey bi benn yoon ànd ak jëwri yeeg ñoom ñëpp benn yoon waaye teewul nag ki fi nekk di sëñ Cheikh Jëm Fall dafa tànn doomam di taawu Cheikh Modou Falilou Fall kon mboolem taawi kër yi dafa mel ne kon kooku moo ci mag waaye moom it mu am nag rakkam joo xam ne ji Cheikh Moustapha Fall Falilou di rakkam nga xam ne moo eh, sëñ Fall ñoo bokk sëñ Modou Aminta eh, ñoo bokk ñoo bokk benn baay moom it da koy def muy jëwriñam nga xam ne bu ñuy dem eh, mooy jiitu nu àllanteeg moom loolu nag noo koy tàmbalee kon fii ci garage bu njëkk bi yi poste police bi nekk foofu juróom-ñaari waxtu ci suba boo ñëwee ci dimanche ji fan ko fas yéene tàmbalee boo ñëwee fa nga koy fekk koo xam ne ki am nga peel boo koy joxe fa nga koy joxe ku am brouette boo ñëwee foo koy joxe fa nga koy joxe ku am ay rajo yooyu joxe boo ñëwee fa fa nga koy joxe. a jumtuwaay yi xam nga dafay am yaatu ndax dafa am jumtuwaay yoo xam ne yi jëm ci kër Cheikh Fall ci loxol Cheikh Moustapha Fall Falilou lañ koy teg nga xam moom moom moo fi nekkal sëñ Cheikh jëmb eh, ndax jëwriñam moo fi nekkal sëñ Cheikh jëmb waaye li nga xam ne nag dafa jëm léegi moom ci eh, geneen wàll dafa am ku ñu wax eh, dafa am ku xam ne dafa nekk fa sëñ Mountakha moom nga xam ne moom itam saa su nekk Cheikh Abdou Latif la tudd boo ñëwee ci kër gu mag gi moom itam foofu la nekk ñun ñëpp nag bu ñu xëyee mbale mi la ñuy séq ndax moom day wër côté boo xale ne bi fa la mbale mi ëppee ñun ñëpp fa lañ jëm waaye Baye Fall yi ñoom bu ñu xëyee ñu ngi tàmbalee fii ci poste police bii ma lay wax ci toolu garage bi buñ fa jógee léegi jëwriñ ji bu jógee ma ngay dem ba diggante kër sëñ Fallou ak kër sëñ Laat tàmbalee foofu jaar marché Ocass ñëw ba njóobeen taay marché ba xam nga am na mbali mu bari mu fay nekk moo xam ne mbedd moom lañ fay jaar jël ko buñ fa jógee nag la ñu doon wër nag jàll ca corniche ba ca kaw jiital ko nag wuti léegi wuti wuti wuti gédé diggante boobu kon mbali mu foofu lay jaar diggante boobu Euh, jërëjëf euh, Baye Ibra ci leeral yu am solo yooyu macha allah euh, Baye Ibra ndax mën nañ xam ba xam bale bi est-ce yaakaar nga ne ren daanaka dina yomb yéen genn yombaa gi ndax boo gisee mi ngi tombee ak nawet bi te ku ne xam ne ne boo waxee nawet wax ay yenn mbedd yuy taa am mbedd yoo xam ne dañuy taa ba macha allah day xaw a yéeme ku ne xam ne nag suñu borom moo ko tuddee woon ne màggal gi nawet bi lay tombeel mais est-ce jàpp nga ne bale bi ren dina yomb ndax nawet bi mu tombee eh, waa waaw jëf soxna si xam nga xam nga mënuma ko dangaa jéemal rek ndax gannaaw suñu maam Cheikh Amadou Bamba dane ku ko defal loo man mu defal la loo mënut ku ko defal loo mënut mu defal la loo jombo kon diggante boobu dañuy fas yéene defal ma Cheikh Amadou Bamba donte mënuñu ko faw daan ko def ba ba ni mu ko bëggee mu ame ko nii ndax jumtuwaay yooyu yëpp waajal nañ ko ndax nawet da nawet mooy booy bale fi barab faw da nga yóbbaale ab gopp boo xam ne bi ñax ma fa ne da nga ko mën a béy faw da nga yóbbaale ab radu boo xam ne bii radu ba da nga da nga mën a loolu faaw da nga yóbbaale peel boo xam ne bii taataa yu ndaw ya fa nekk yépp da nga ko mën sëkk maasale ko faaw da nga yóbbaale bureet boo xam ne bii bureet boobu eh, boo radoo la ngay koy def ba nga yóbbaale ay parla yoo xam ne itam parla yi mooy ay saaqoot saako la yoo xam ne yu ñu tàllal ndax da am diggante boo xam bii ñaari nit rek a fay mën a dem wala kenn fay mën a dem ndax xat-xat ba mu xat xëy na bureet du fa mën a dem wala saret du fa mën a dem wala diggante boobu loolu lépp dañ koy waajaale nga xam ne ci biir waajaale boobu ci wut ana nan ay soxna yoo xam ne ñii ñii dañuy may ndox ñii dañuy maye café topp ci mbooloo mi ñi nga xam ne ñi te yor ay seen bale ak seen i yoo xam ne dañuy àndante ak ñoom ci diggante liggéey boobu nga xam ne moom a bale a ba mu set wecc loolu lépp ànd na noog mbooloo moo xam ne euh, nag ba tey rek xam naa ne yàlla dogal na ki nga xam ne ki mooy Touba ca kanam euh, nga xam moom fan yi yëpp moom itam mi ngi ci diggante boobu nga xam ne wax dëgg yàlla soo seetloo ndogal gi nu ci daal loolu lépp day bëgg rek bëgg bëgg lu baax rek moo ko yóbbee wax dëgg yàlla day euh, sëñ Abib Mbacké yéeneem ci Touba mooy fenn bañ a taa lépp maase yoon loolu it waxaale nan ñi nga xam ne ñuy bale itam nañ ngàbbaale ay peel yoo xam ne fu ñu suul ba mu jàll mu des foo xam ne fi a ngi koy waajal waajale ak solo yoo xamante ni bépp jumtuwaay boo xam ne da ngeen koy soxlawoo ci Ibra ndax mën nañ xam tamit wàccaay bi lan ngeen ci gën a yokku tu jamono bi nga xam ne mi ngi tombeek mbas mi nga xam ne euh, yàgg na ci àdduna bi lool euh, ak jumtuwaay yi nga xamante ni war nañ koo mën a jël ba gën a mën a maytandiku feebar bi ndax buñ dee wax lu mel ne ci wàllu mbale ak mel noonu euh, ci jumtuwaay yoo xam ne daanaka da nga fi da ngay daje ci yenn bërëb yoo xam ne day dal day laaj jël say matuwaay yu ma sëkk côté boobu ban waajtaay ngeen ci def jërëjëf soxna si moom day xam nga ab taalibe moom la ca gën mooy mu nangu ndigal noonu nag ñun nangu ndigal la nu ndax ndigal li nu nangu sunu jëriñ ju baax ji sëñ Muntaxa Mbàkke ñu di ko ñaanal sa borom yàlla yàggal ko fi te doo leen dimbalam eh, dogalu yàlla saa su nekk day am lu yàlla dogal lu nekk da nga koy war a nangu te it àdduna moo baaxoo eh, saa su nekk lay ñëw nga xam xel ne lii kat dogal la bu sunu borom yàlla indi loolu mooy sababu sëñ Muntaxa bi yàlla dogalee mbas mi am itam xam nga moom dencul xaalis yorul xaalis xaalisu murid yi rek la yor waaw la tax mu attana jël ci xaalis murid yi lu tolloo deux cent millions léegi ci joxe xam na ne kooku léegi bañu ko contre ko ah, kon léegi ci biir loolu nag tax na joxe ne ay ndigal ci màggal gi képp koo xam kii ndax mën ga aar sa bopp ndax am na ci loo xam ne li aar bopp rek la du aar réew mi aar la ndax defal naa nga mucc moom kenn ku ne bëgg na ko sëñ Muntaxa nag la ñu digal nga xam ne kon léegi yi nga xam ne jumtuwaay yi nga war nañ ko aar bopp yëpp jumtuwaay yooyu yëpp fàggu nañ ko ndax fi mu ne benn Baay Faal boo ci gis boo làmbeen ay poosam soo ci fekkoon ñaar faw nga fekk ci benn ci poosam loo xam ne lii moom saa su ne fu muy génn wala lu muy def loolu ma nga cee nekk lool rawatina nag xaw ma bitéel yi ñu yor xaw ñu ko tuddee saa su ne ñu koy doxaale saa su ne di ko di ko wiyaale ndax eh, kaay sangu ju ne kaay defar sab taar rek la kon nan xam ne nun contrôle état li état waxi ànd nañ ceeg moom ndax xëy na la mu gis gisunu ko waaye nun li gën li ñu gën a sukkandiku nag mooy baatu ndigal bii nga xam yàlla dogoon sëñ Muntaxa yëkkati na ko jox la ko te jaarale ko Cheikh Bass te diggante boobu ci leen sukkandiku lu ñuy def lu nekkit ci loolu koy jaare kon diggante boobu ci la nekk amaa nag waajtaay wi nag eh, leen ciy gën a soññit suñ bokki taalibe bii mooy bale moom ku koy def ku ne dafa am ay jumtuwaay yu koy def jumtuwaay yu koy def nag la ca ëpp la ca njëkk mooy oto moo ca njëkk ndax boo balee ba noppi war ko génnee ca biir dëkk ba wala ca gannaaw dëkk ba faaw nga am oto boo xam ne bii oto bi dana ko mën a génnee ji ca gannaaw dëkk ba mën ko fa wacci loolu kon mel na ne oto moom moo ci njëkk benn moo gën a baax oto benn oto benn moom moo gën a baax ci mbalit ndax oto yi mën ngaa doon ab camion waaye bu dee doon camion mboola mën nañ ko chargé waaye buñ koy wàccee yéen mboola fay dem wàccee ji ko bu dee benn nag moom boo chargé ba noppi da nga yebalu man ñeenti juróomi nit rek suñ demee léegi ñu daal di koy beene daal di dellu siwaat ci biir mbalit mi loolu kon moo gën a jàppandi ci nun moo gën a jàppandi ci lool waaye ci biir loolu nag téewul noo ngi ciy woo nag borom sareet yi ndax borom sareet ci dëkk bi lañ bokk donc ci woo borom Mbàkke Tuubaa yi ci dëkk bi lañ bokk beneen bi ci des itam moo am na ay soxna yu mel ne yow yoo xam ne yii dafa am jàmbaar yoo xam ne yii day teel a xëy ne man damaa bëggoon a xëy bala may tax kenn njëkk liggéey moom naa ci jëm a teel a góorgóorlu ñu naan ko toogal xaar ndékki ngi dem kooku yaakaar naa ne ku ko dab ak kafteeru café yaakaar naa ak ndékkeeb mu ndékki delluwaat ci biir liggéey bi yaakaar naa loolu dana ci baax lool beneen bi ci des itam mooy jigéen ñi nga xam ne yàlla dogal da nga faa dëkk am fa kër eh, yàlla dogal ñuy liggéey ba romb la eh, xam ne kuy liggéey ku ne da ngay mar nga génne sab siwo wut sa mbuus glace def ca yaakaar ne ko ne ko sëñ bi kaay naan kooku itam yaakaar naa ko ko xeet yu bare bare bare nekk ci yoo xam ne eh, yaakaar naa ku ci jéem a góorgóorlu fak ko yaakaar naa da nga am loola jëriñ ndax eh, munoo dem tool waaye munoo jox ndox kay dem ca tool ya munoo joxo nit ne feele tool ya nekk loolu yaakaar naa comme daal fee na yow sa bopp kon daf am yoo xam ne yi bu la rombee da jéem a góorgóorlu waaye moo gën nga toog naan ah gars yi jàmbaar lañu gars yi jàmbaar lañu nag bokk ci jàmbaar yi da koo gën Baay Faal yi nag eh, ñoom bañu ñu fenn waaye li ñuy ñaan borom kër yi itam ñooy rawatina kilifa yi nga xam ne suñuy kilifa lañ bu mbali nekk ci seen biir kër nañ ko teel a génne ci bitti ndax moo gën kat ñu dugg fa ba ca biir am keneen ku fa dugg am lu mu fa ñu naan Baay Faal fi duggoon te loolu nun dool suñu baax baaxuwun loolu loolu kon la cay gën mooy boo xamee ne daal am nga mbalit ci sa biir kër da ngay fexe ba génne ko ci bitti bu ñëwee man mën mbalit mën ko jël su fekkente ne loolu amu ci itam nga xam ne da ko war a baylu it day jar nag wala sa dëkkub Tuubaa wala sa kërub Tuubaa da jaral nga wut waay benn waay mu bayal la ko buum ñax ma teg ko fi barab bu ñëwee mën koo jël yeneen ci des itam li nga xam ne gën na noo lëjal nag mooy pàkk yi nga xam ne seeni waram na caa dëkkut te baliwuñ ko toppatoo wuñ ko te kenn ku ko laal ku ne ay ay am loolu itam wax dëgg yàlla war na cee man a wax pàkk moom ku ko am nga xam ne war naa mën a man ay millions la mën a jar bu màggal accès war ngaa mën a yut nit nit fay ko juróom benn téeméer wala fay ko benn junni mu bale ko ba mu set wala mu defar ko ba mu set waaye jël pàkk rek ne pàkk bi maa ko moom amatoo ci soxla carton ak perméable lépp fa nekk ko nekk yow amoo ci soxla te buñ ko bëggoon na nangu tey ji nga ne moo nangam naa ko moom maa ko moom te kër dëkk bi nañ xam ne kenn moomu fi dara lépp kër Cheikh Ahmadou Bamba la gannaaw dañ la fee baaxee nag daggal la fi ah ne la yow yaa ko moom muy sa teraanga teraanga ji war nga ko fan di di toppatoo hmm, waaye nag am na ñoo xam ne baliwuñ seen kër bale wuñ seen i pàkk te dara dara warul ko nag lu may eh, yaxantu boo xam ne bii damaa jënd pàkk damaa bëgg a nekk ba mu bàyyi ba mu gën a neex ma gën koo jaay xam nga loolu kon daanaka bokkul ci bokkul ci bokki sart yi te loolu itam daanaka am na kon waaw koy jërëjëf soxna Baye Ibra xam naa eh, yan kàddu yi soññee ngay def eh, askan bi rawatina taalibe Serigne Touba Xaadimu Rasul yi ak sa kàddu yu mujj jërëjëf soxna si wax dëgg yàlla day noongi ngi santaat suñu bokki taalibe yu baax a baax rek xanaa di leen fàttali rek lan waxante woon ak sëriñ bi ak sëriñ bi it la mënu dikk nan ko fàttali ko bu baax a baax ndax noo ñëwoon ne ko jébbal nañu suñu bopp adduna ak àllaaxira loolu digal danañ ko def loolu tere daan ko bàyyi loolu day baat boo xam ne bi baat bu am solo la kon as gor su nag la waxoon da ko war a xool te di ko def te di ko doxee bi ko ñaareel mooy ñu xam ne it ay julit lañu ay julit dañuy dox eh, sart julit ndax koo ci nekkat fi mu ne ko dóob julit day daal di waaye bu fekkee da nga dim julli man te sarti julli yëpp doo ci dox dara itam daanaka loolu du am du am solo te Cheikh Saliou Mbacké kat am na lu mu waxoon daa waxoon ne si Sëñ Tuubaa nee na yàlla bi mu ne bindee ba noppi daf noo bindal ñaari biir suñ biir bopp ak suñ biir bammeel wax ne seen biir bàmmeel seen biir bopp bii nag bu mu leen yitteel bi loolu leer na naññ léeg-léeg nga yenn ko boo xam ne añ ba ngay añ joxe ko joxe woo ko fa ah. waaye nee sa biir bammeel bee nag loo ci deful doo ko ci fekk kon diggante boobu nan xam ne nan xam ne ci ay jaamu lanu yàlla la nay jaamu yàlla saa su nekk te fonk sëriñ bi ndax sëriñ bi day li mun amal jar na ñun ñëpp bokk góorgóorlu kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, allah jërëjëf euh, Baye Ibra Dia ñu koy jaajëfal bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm ci leeral yu am solo yooyu euh, lépp rek jëm ci waajtaayu màggal Touba ko waxee rek nee bu bis baa dañuy dajaloo fa nga xamante mooy ci poste contrôle ba ci ancien bi dajaloo fa ñoom kilifa yëpp rek waaye tamit wutali li nga xamante mooy mbale mi waaye tamit lépp rek jëfe ndigal li euh, ku ne xam na ne euh, kàddu yi digg dañ nañ ko mu nekk kàddu yoo xamante ni macha allah leeral na ci lu bare bari ak xeeti jumtuwaay yi nga xam euh, ni mën dañ ko ci jànkonteel lu mel ni pàkk yi comme ni ko leeralee sànq ak yeneen yi ci aju lépp rek jëm ci waajtaayu màggal Touba bi ñu ngi koy sant baax di ko gërëm Baye Ibra bokk ci ëttu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di leen jaajëfal yi ñuy topp ci site bi di 24 actu हो